salaamaaleykum nuyu nañ leen ci li xew ci biir internet bi jaajëfal leen jaajëfal eh, internet yi min ngeen hashtag bi sunu net la Facebook live YouTube live Instagram live Merry ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal tey le 10 mai 2022 hein waaw après le 10 mardi 10 mai eh, di la nuyu Ndiaye di nuyu suñu téléspectateurs yi ak internet yi nga xamante ne ñoom la ñuy safal di interagir chaque jour. Mhm. si seen émission li xew ci biir internet di leen dalal ak jàmm euh, foo leen mënti nekk wala foo leen mënti toll euh, moo xam yéen a ngi añ wala yéen a ngi naan seen ataaya wala yéen a ngi préparé julli. bàyyi xel li xew ci biir internet bi mais léegi télé ci poche yi smartphone yi moo tax léegi mën ngay def say activité di continuer di bàyyi xel. télévision yi gars yi donte amuñu temps aussi moom laay def nii xanaa gisoo ma maa ngi jàkkaarloog euh, téléspectateurs yi fi nga génn di jàkkaarloog internet di def sama live nii direct di xool di lire. en tout cas c'est cool ah Samsung la Jili CSB. waaw Jili CSB tey moom moo waat àndaat ak moom. Mhm. ak ay affaire yu doy waar. téléphone portable yaa ngi nii. ngi Galaxy A3 euh, ak ay gadget yu yoo xamante dina leen arrangé comme ñu koy mayee fii ah. te xam nga man dama bëgg dama bëgg fa taw. Mm. wala affaire bi dafa ànd ak télécommande. ngay def selfie taxaw rek daal di dóor sama pose rek xam nga. non mel ni man la def samay selfie. baguette selfie la. waaw kii ajaar du ci am. ah Adja ankay Adja moo géré digital du ci am. moo géré affaire yi ci ginnaaw Adja di ko jaajëfal. <laughs> mais ni nga koy defee noonu dafa cool essayé waatal ak Samsung la mais ji li mooy joxe yi waaw Samsung taxaw rek dóor sa pose rek xam nga xale yu jigéen ñoo ma gën a mën pose sax. non yow yaa gën a mën a pose moom noonu. <laughs> da ngay xool leen ko ci <laughs> réseau yi rek. di xool démb rek déjà bi ngay reprendre la reprise là. waaw la reprise avec toi yow tamit. tu as fait l'annonce. waaw il fallait qu'on reprenne su ko il fallait qu'on fasse l'annonce su ko defee gars yi gën a ñëw ci live yi ñu gën a interagir ak ñoom. gars yaa ngi fi nag démb commentaire yi gis nañ ko gis nañu message yi boole leen ci hashtag bi sunu net wala ci TFM même boo amee ay questions lu leen jaaxal ci internet bi suñu euh, spécialiste yaa ngi fii ñun on va fair la job pour vous. Mm-hmm. mais surtout gën leen expliquer def yaatal bi actualité bi nag démb tey ci réseaux sociaux yi dugg. Mm-hmm. ci Facebook ku nekk ko déploré mooy acte de vandalisme noonu la ñu ko mën a tuddee ah. acte de vandalisme bi nga xamante ne euh, TER bi daal dina ko subir ñu daal di dagg ay câblam mhm. euh, donc euh, ci côté forêt classée bi ki nga xamante ne sax mu di directeur APIX bi mhm. mu di monsieur Mountaga Sy daal dina def benn intervention daal di expliquer lu daal di xew mais en tout cas daal ñu bëre ñu ngi koy déplorer parce que lu mu ak lu mu mënti nekk li du loo xamante ne nii dafa rafet parce que mënoon na jur ñaan ñu ko yàlla loraange accident ferroviaire te bu boobaa kenn du mën natt étendue euh, boobu boobu jëye mais lu doy waar la loo xamante ni c'est inexplicable mhm. ku nekk ka ñaaw lu démb naka la nit mën a defee lu ni mel ñu dégg ci ki nga xamante ni mooy directeur APIX yi Mountaga Sy ci indi ci ay leeral train bi ñu daw nii 30 kilomètres la. amuñu retour parce que ci zone bi la ñuy tàggee ba dem ba ci kanam mu soog a dawaat vitesse normale bi. ci bële voie gis ngeen ko dafa jaar léegi daw ci yoon normal bi ci voie normale bi pour juste ngeen comprendre. lii moo xewoon démb ci guddi ñu waroon ko wax sénégalais yi combat bi nag combat c'est le combat de toute la population ñu war a taxaw bañ lii xaw ma lu tax ñu def ko xaw ma lan mooy seen yéene du njëgu wala alalu 60 mètres de câble moo tax ñu ñëwoon fii là aussi dama bëgg ñu xam ko c'est très important voilà mu nekkoon euh, Mountaga Sy wax na ko acte de vandalisme leneen loo ko mën a tuddee laa laa xamul. coupé câble terre non non noo ko mënoo ko tuddee leneen en fait parce que doo xam en fait lan la je pense que ils vont mener une enquête te bu boobaa dinañ daal di euh, arrêté ñi nga xamante ne ñoo ñoo def li ñu li ñu mel. Mhm. Euh, parce que lu mu mënti doon tamit terre bi alalu mbooloo la maanaam c'est un c'est un bien public. voilà mhm. c'est un bien public loo xamante ne ni ñun ñëpp mhm. ñoo ko bokk moom te daanaka bi mu ñëwee ba léegi. franchement ni nga defee sa selfie baguette kii bi ak ni ngay wonee Pape Sam ko wone ko. wone ma ma xool sama bopp te eh, gis nga oh. lii. si xale digital mère digital. gis moom day wax lu neex ba ñu foog ne ne day togg ba muy foog ne rek mu jël suuf rek këpp noonu lay def <laughs> ay sa yii ah. dégg lii maa ngi nekkoon fu. point ñu bu important ñëwaatal ñi ngi yaa ngi woon fu baax nag fii. <laughs> waaw fa ñuy delluwaat déjà. ñu ne voilà acte de mooy image du jour bi d'ailleurs parce que euh, lii. Euh, je pense que ñëpp ñu ngi koy daal di euh, euh, wax ci réseaux sociaux yi di ko partager te di ko ñaaw lu aussi parce que dafa nekk loo xamante ne nii lu bees la mais comprendre ñu en fait il faut comprendre l'acte et on uh-huh. n'arrive pas à comprendre pourquoi Euh, ñu daal di euh, agsi à à ce point là parce que terre bi comme on l'a dit c'est un bien public ñëpp ci bokk euh, ñëpp ci daal di bénéficier wu donc ñu koy ñaawlu bu baax. parce que tey moom boo xëyee moom fi ñuy waxee ni à l'instant T yëpp yëpp yëpp. am nañu image yu câble électrique ñu ngi ko gisee. fële ci cité imbécile cité bu am la fii ci Sénégal. waaw xam naa cité imbécile mooy gars yi fa la xam naa fa. ci kanam tuuti xam naa ak Pape Samb dinañ am image yi waa gendarmerie nationale effectivement euh, information bi kii di euh, soxna Naata Mbaye suñu conseiller bi moo ñu ko partagé léegi. Mhm. en temps réel ñoom bu ñu ko yóbboo foofu dañ koy jaay wala lan la dañ koy dañ koy jaay la ak yooyu yooyu mais xam naa ne gendarmerie dina def liggéey ndaxte image nañ ko am léegi mais effectivement lu doy waar la gis nga dagg câble yi yóbbu ko ci cité. c'est en c'est wala di def leneen non lu doy la te xam naa lii. yëf yi dina am résultat de. non parce que mooy li ma wax dinañ ko enquête il a une enquête il y a en cours te mm-hmm. euh, dinañ xam euh, exactement euh, kan moo ko def wala ñan ñoo ko def. ñan ñoo ko def donc loolu mooy information les câbles du terre retrouvés à la cité imbécile par la gendarmerie nationale. Mm-hmm. loolu mooy xibaar bi xam naa ak léegi am na image yu ñu envoyé léegi suñu réalisateur connecté bi. dinañu ko envoye dinañ ko partagé pour téléspectateurs yi internet yi suñu image du jour wax nga ko effectivement démb la xewoon ca zone forêt classée bu mbaaw bi. Mhm. mooy câble yi ñu. Euh, dagg moom en tout cas lu triste la bëgg ñu bëgg nañ fi di wane ay image du jour yi rafet Pape Sam wan leen image yi euh, internet yi xool ñaawlu ko commentaire yi. et puis dafa euh, daal di dafa daal di créer li nga xamante ne moo di retard ci trafic bi. Mhm. retard de 30 minutes donc euh, euh, ñi nekk ci biir ñëpp dinañuy dem di joxe ji seen soxla ñoom tamit ñu nekk un retard donc c'est des conséquences à diverses échelles. c'est-à-dire voilà yow li ngay li ngay li ngay xalaat a def. yaa ngi retardloo kii kii di mu ngi retardloo kële ainsi de suite ainsi de suite mais daal vraiment euh, c' est une euh, voilà c' est c' est vraiment un acte de vandalisme boo xamante ne ni waaw c' est ça en fait doo xam sax la ñaaw na trop ñaaw na euh, je vois je suis en train de regarder ñaaw na trop euh, émission très intéressante jox ma euh, je suis en train de regarder les commentaires des internautes sur ça xam naa ne démb ba ci commentaire bari na page officielle voilà je vois Euh, j'ai vu le commentaire de Deguety lii waa mhm. Soleil la seen page officielle. Mhm. Euh, am na sax fii ci internet bi ku tudd Aminata Kébé aussi. mi ngi daal di wax fi ñu retrouvé câble électrique bi. ca ca ca cité imbécile. ca cité imbécile mi ngi ni waa gendarmerie ñoo def liggéey bu ni mel ñu ngi ni euh, wax nañ ko en temps réel ngeen am info yi. en 24 heures ils ont retrouvé les les. moins de 24 heures heures donc imaginer ñi ko def. dinañ leen jàpp waa ah. gendarmerie ñoo nekk ni ngi nii ñoo def liggéey bi moom li mooy descente bi ñu leen di jaajëfal bu baax en tout cas ci lii parce que yooyu noonu yi lii moom vraiment cité bi ci boppam tamit war nañ ci mën a defaat beneen gëstu ñu jéem a wut pexe nu ñuy lijjantee cité bi cité imbécile mi effectivement donc loolu mooy information bi câble électrique yi nga xamante ni moom la ñu daggoon démb fële ca forêt classée bu terre bi mhm. euh, maanaam waa gendarmerie nationale Euh, retrouver nañ ko maanaam gis nañu câble yi ci boppam fële ca cité imbécile ab dëkk la bu nekk fii ci Ndakaaru boo xamante ni yàgg war amoon na ay incendie ay mm-hmm. parfois yu doy waar ay mm-hmm. ay euh, situation yu ni mel mm-hmm. lañ fay la ñuy euh, gën a fësalee dëkk cité bi nga xamante ni mi ngi fii ci biir Ndakaaru donc loolu mooy actualité bi internet yeeg démb ak tey ñëpp di ko statut WhatsApp Facebook dinañ ci ñëwaat. ñëpp a ngi koy ñaawlu vraiment. ñëpp di ko ñaawlu effectivement amul kenn ku ba si nii nii mhm. euh, pour un pays en voie développement. Mhm. wala pour un euh, euh, pays boo xamante ne dañu bëgg voilà di développé man gis naa ci benn grand boo xamante ni mi ngi dëkk Tëngéej xaw ma après Tëngéej. Mhm. sama benn grand mais nee na ma bi tey bi commencé ba léegi utiliser tout oto. mais dëgg la mais ça rend service à beaucoup de jël di liggéey si Ndakaaru jël terre bi liggéey si bu wàccee jëlaat terre bi dellu. nee na dafay économiser essence oto. c'est ça économiser li mu doon fay ci ay péage ak yu ni mel. effectivement xam naa ne nañ mel mais loolu baax na. c'est ça c'est ça. gars man man man Afan Ndiaye de ça sax man li may xalaat mooy tey bu amoon accident. Mhm. naka lay naka lay demee parce que imaginez terre bi ak vitesse bi muy demee. mu am accident ñuy wax yëfu sénégalais rek loolu kay. sama yaram baa ngi daw yàlla ci yàlla musal. amiin euh, euh, yàlla def na si sutura ba ñu gis ne câble dañ ko dagg. waaye retrouvé nañ ko cité imbécile fii ci Dakar euh, Pape Sam wanaat leen image yi gaa yaa ngi demandé waat image yi internautes yaa ngi nii. Mhm. waa gendarmerie nationale ñoo def liggéey bu ni mel. Euh, ña ngi ko retrouver fële ca cité imbécile mooy câble électrique yi nga xam ne dañ ko daggoon démb câble terre yi mhm. euh, train express régional bi nga xamante ni démb moo ci juróon coow li wan nañ leen léegi euh, déclaration bi nga xamante ni kii di Mountaga Sy moom bi nga xamante ni moo jiite si wax na ko démb acte de vandalisme la waxoon nañ ni porte nañ plainte contre X Euh, gendarmerie ngi def liggéeyam ba fi mu ne nii euh, câble yi ci boppam retrouvé nañ ko fële ca cité imbécile donc euh, loolu mooy xibaar bi yeneen yi ci jël maanaam yeneen yi ci sos yi tamit dinañ ko jël daal di koy partagé ndoog ak yéen comme ni muy demee li xew ci biir internet bi information la en temps réel ce qui se passe sur le web mhm. mais surtout information utile la comme démb ni benn internet bi ñu ko waxee nee na réseaux sociaux yi internet ñi ngi fii mais toujours nañuy gën di vulgariser information yu baax yi. waaw di dem ci site yu baax yi afin d'avoir les bonnes informations. et les informations utiles et vraies. nga koy am ci heure bu baax bi. ci heure bu baax bi ci émission bu baax bi sax. yaa jëf <laughs> mi ngi noonu léegi ñu ngi doon wax ci teer beeg yooyu mbirum insécurité bi tamit coow la. waaw chaque jour nga gis benn vidéo boo xamante ni ñu koy partagé. ñu naan la fii la xewee ci Sénégal ñëpp dañuy posé question est-ce que lii Sénégal nee naa la man démb maa ngi koy maa la koy wax man Sénégal comprendre tuma en fait da dégg ay cas de de violence yoo xamante ne da naan non lii du sama dëkk xoolal li mais ñii moom vigile bi moom dañ ko war a décor waaw waaw waaw waaw kii moom mu bi sauvé ndaw si nii kii moom dañ ko war a ñëpp ñoo jàpp ci bu jëkk ba Mm-hmm. c'est-à-dire parfois da nga gis ay agression yoo xam nga ay voilà tranquillement ils s'occupent de leur c'est ça parce que léegi nit ñi dañ lay agressé wala dara mais du ñu intervenir mm-hmm. soit ñu xool wala ñu jël seen téléphone filmé wala ñu wala ñu dem tu vois mais kii heureusement que vigile bi aidé na ko sauvé na ko. Mhm. donc moom moom moom mën na sant vigile bi bu baax. sauvé ba pare jàppul gars yi man nag li ma bëgg a xam mooy ba xam ne mujj nañu jàpp gars yi bi seen scooter bi jàpp nañ leen. scooter bi moom denc nañ que scooter bi xam na am ngay papier. après bu ñu koy gendarmerie yooyu gars nañ def li ci liggéey bi ci war pour mën a jàpp agresseurs yi kan moom moom. mais en bravo à lui moom bravo. vidéo euh, du jour la war a nekk sax nag koy wax ma la vidéo du mois de l'année vidéo du jour la lii moom bravo ah leen ñu nii la seen parfois yi ngeen xam ni. et peut-être avec la magie du net euh, dinañ mën a retrouver vigile bi. pourquoi pas. voilà su ko su gisee émission bi mën nañu contacter. waaw mais ko defee mu expliquer ñu. damay bañ ñu exposer ko ndaxte bon il faut wax naa léegi. Mhm. ne xamaguñu bon je sais pas amaguma information que ni jàpp nañu gars yi. jàpp nañu gars yi waaw on ne sait jamais. jàppaguñ ko ba pare buñ ko wanee mbaa duñ ko exposer wala sama xalaat la rek ah. ça dépend si moom. Mhm. adulte la wax lañu seen xalaat adulte consentant la. Mhm. waaw. internautes yi tamit mën nañu wax seen xalaat mais bañkat nekk cible gars yi wala tamit peur bi dafa war a changer de camp ah. exactement. <laughs> après lu mën a nekk la voilà euh, vigile boobu di ko jaajëfal image bi tamit def na tolle ci réseaux sociaux yi leneen li mooy beneen image bi bii ñu ngi koy vérifier ba tey. Mhm. lii li ma jaaxal moom mooy j'espère que sàccul xale bi. ndax ah, mënoo sàcc xale di ko yóbbal ci charrette. moom daal xëcc bon. je pense que bi la bëggoon agresse bi la bëggoon <laughs> on espère mais en tout cas daal. xale bi la foqate de. xale bi daal la foqate waale. c'est que nañu def nànk parce que. mais bon yi aussi fii la ñu nekk fii Sénégal la euh, ñu ngi vérifier fan la ban quartier la. ak naka waaw euh, nañu def nànk parce que saagu xale man gisuma lu ñu ci sàcc. man gisuma lu ñu sàcc ci xaj ci saagu xale donc euh, man daal damay wax en tant que parent. naa wax parent yi nañ def très attention mhm. Euh, à leur enfant parce que vol d'enfant yeeg fu mu ne nii moom dëkk bi moom dafa jaxasoo bu baax a baax a baax mhm. donc euh, soo leen doon def attention doubler encore euh, cette vigilance là ngeen gën a def attention surtout si tout tànk yi voilà dëkk bi doy na waar fi mu ne nii mais police gendarmerie vraiment bravo à eux ngi def liggéey bu am solo donte Euh, à chaque fois bu ñuy ama plaindre wu yenn situation yi nga gis à chaque fois deux jours wala moins de vingt quatre heures résultat yi di ci am mais alerte encore c'est c'est mieux ñuy gën di alerte sensibiliser euh, ndaw ñeeg population bi ndax fi mu ne nii ko wax ñu ne dëkk bi waratu te pourtant mm-hmm. c'était pas le cas ay dix ans vingt ans derrière suñu bàyyi dañu doon dund fii en toute quiétude nekk ci seen jàmm Sénégal partage bi. même bu amoon sax euh, taxu ko woon bëre comme nii te mm-hmm. taxu ko woon fës comme nii. avec cette violence là peut-être ñenn ñi dañ naan la voilà amoon na bariwoon na mais téléphone yeeg réseaux sociaux yi. explosion des réseaux mm-hmm. sociaux aussi ça melu ko woon. Mm-hmm. peut-être quoi pas mais bon li ci mën di am rek mooy lépp di ngeen ko am muy gën di leer fii ci li xew ci biir internet bi réseaux sociaux yi Facebook Twitter Instagram. en temps réel loo dugal même pas 5 minutes 10 minutes dinañ leen ñëw expliquer leen 60 euh, minutes xam nga 60 secondes sur internet mu ngi woon nu mu nar a mel 60 secondes rek laa wax 60 secondes. non euh, non dinañ ci ñëw loolu. gën ko 60 secondes. pas sur internet une minute deux minutes trois minutes. Non, 60 rek à ce rythme où on les choses. Mhm. Euh, je pense que ça va être l'histoire de toute une vie. plus de minute. ah Pape Sam naan ma soixante secondes une minute effectivement une minute la. <laughs> mais plus minute je veux dire. <laughs> réalisateur yi ci émission bi waneen mairie Samsung bi nga xam ne dama le juge mii di ma woo na coupé maa ngi émission. ana juge bi monsieur le juge moo may woo nii de. dafa kontaan. <laughs> Malick coucou. wan leen Djily euh, CSB ma nga nekk rond point cité kër góor gi numéro téléphone am euh, miin ngeen ko ah Djily moom miin ngeen. Euh, adresse yi am na yeneen boutique mhm. euh, numéro 822 47 00 am na yeneen entre Colobane Parcelles Assainies euh, voilà Djily di ko jaajëfal moo ñuy may gadget yi ñu leen di jox ak téléphone portable yi nga xam ne dañ koy jox internet yi saa su ne ci image cachée bi tey d'ailleurs am nañu indiwaat nañu image cachée mhm. mais tey moom yombul de non non ah yow tamit yi ku ko bëgg a gagné kay voilà mi ngi nii image nii yomb na nag non li yomb na <laughs> moo def lii non Youssou vraiment li taf taf lii xanaa man mi man mi xaw a gumba sax xam na xale yi sax xam nañ ko fi mu ne ah, waaw baax na lii de dem ciy teg téléphone bi portable bi lii daal di xoolal tegal lii tegal bi en jeu ba ñu indi bu metti ñu door a teg téléphone bi ah. waaw waaw c'est toi qui décide yaay chef waaw nañ teg bii. mais lii nee nañ man téléphone laa bëggoon maye. laa biir dafa baax dafa oyo dafa yomb dafa yomb trop. <laughs> nee na question dafa yomb. envoyé leen ñu seen <laughs> réponse ak hashtag bi sunu net boole leen ci TFM muy Facebook Twitter Instagram na i réputation TFM gën a jóg ca kam ca kaw donte réputation bu baax la am macha allah mais na gën a jóg boole leen ci TFM. ak euh, sunu net Facebook live YouTube live Instagram live même Twitter boo leen euh, waxee wax ñu image cachée bi. Mhm. Euh, bind ci commentaire bu simple. en tout cas sama gars yi commencé nañ petite présentation mi ngi commencé. sama gars yi commencé nañ ko oui donc. Bachir Lodé nee na Pape Cheikh Diallo la. waaw pourquoi pas joxe leen mhm. rek. yëpp tout est possible ku luñ xalaat rek. waaw ah, authentique AG moom nee na Pape Sidi Fall la. voilà Adja digital ni ni nii nii mën ngeen wax na joxe leen ci seen xalaat donc commentaire yaa ngi noonu euh, wala euh, question baa ngi noonu réponse bi cadeau moo leen di xaar yéen euh, internautes yi. temps am na lu xew ah. ma seetlu ci réseaux sociaux yi mooy jënd ay page pour envisager voilà yokk sa notoriété wala popularité temps yi dama gis ni moom sax xam naa peut-être élection yi dafa nekk benn fait boo xamante ne nii euh, mi ngi commencé euh, di euh, di yéeg bu baax mhm. parce que da ngay jékki-jékki sax doon suivre benn page nga jékki-jékki gis page bi changé tour daal di ko tuddee neneen ak neneen ñu ngi jëm ci élection yi mhm. politiciens yi ñoom tamit dañu am seen team digital mhm. ñu daal di def aussi attention si li nga xamante xamante ne moom moo di page yi nga xamante ne moom la ñuy follow wala moom la ñuy suivre. Mm-hmm. parce que euh, jënd page ok euh, def si say information wala pour propagande aussi euh, bon. ça peut retourner contre toi. ça peut se retourner contre contre contre vous. c'est mm-hmm. une arme à double tranchant. ah attention. waaw d'ailleurs inter interrogé nañu Cheikh Mbacké moom digital manager xam-xamam màcc lool ci genre situation yu ni mel constat la bi ñu def. Mm-hmm. internet yi demandé ñu naan ñu lii lu tax explication baa ngi noonu ak Cheikh. jënd page wala jënd compte Instagram donc mooy loo xamante ni yow da ngay lancer sa benn business wala benn affaire nga taayal wala amoo patience peut-être créer benn communauté mu màgg engagé wu si yow li nga xamante ni nga proposé comme service wala comme contenu mais nga dem jënd benn page wala benn compte boo xamante ni amoon na déjà de l'engagement avec une communauté existante pour après détourner ko à d'autres fins

après euh, voilà mën ko utiliser pour promouvoir un peu seen activité wala la personnalité politique ou publique bi nga xamante ni moom moo racheté page boobu noonu li ci xaw a dommage tuuti mooy surtout ci cas bi ñu si gis fan yi mooy ay page yoo xamante ni bi ñu koy créé li tax nit ñi bëggoon page bi engagé wu ci di like di partager li nga xamante ni moom la page bi doon promouvoir ak bi ñu ko racheté li ñu ciy def du nekk benn donc après loolu aussi mën naa am impact sur que Euh, contenu bu bees bi ngay tàmm di publier donc ligne éditoriale bu correspondre la ak ligne éditoriale bi nga xamante ni moom moo taxoon ñu créer page dañ koy tere wala mais xëy na ku koy def mënta ñàkk ba nga koy def tamit nga. jaajëf euh, jaajëfal bu baax Cheikh aussi Cheikh Mbacké ci explication yi constat bu ñu def temps yi jëndum page yi ndax politiciens yeeg élection yi ñu jëm ak ñeneen ñi nga xamante ni euh, yu ci bari borom xam-xam yi conseillé wuñu ko. dañ mhm. liñ ciy conseillé mooy nga def ndànk-ndànk créer sa communauté petit à petit. pour gën a mën a euh, gën a mën a yokk sa popularité. am na ñoo xam ne choix bi ñuy def mooy jënd. waaw bon euh, c'est un choix mais il faut que su ñuy def choix boobu aussi il faut que nit ñi nga xamante ñoom la ñuy ñu expliquer leen. Mhm. Euh, lan moo nekk ci gannaaw loolu parce que c'est bien beau d'acheter des pages et des pages. Mhm. yoo xamante am na ay follow ba pare mais tey boo jëndoon benn page boo xamante immobilier rek lay def. Mhm. nga jékki-jékki di fa poster leneen lu dul immobilier créer sa benn page. Mhm. petit à petit s'il le faut nga am benn community manager boo xamante de temps en temps dina def ay post ay post sponsorisé wala leneen ak leneen di ko partager di utiliser euh, ce réseau euh, ñu ñuy repartager. Euh, petit à petit daal. mais jékki-jékki rek wut ay page page page parce que bu élection yi jàllee tamit. après page yooyu lan lay lan lay si lan lay kii lan mooy avenir am. maa ngi ay fan page yoo xamante ni président Macky bari na lool xam na depuis Macky Sall yi. dem leen ci internet la fi jamono toll la jaajëf euh, loolu am na ci solo influenceurs yeeg mbirum euh, Dubaï porte à bi nga xamante ni ba tey mooy buzz nag. Mhm. waxtaan nañ ceeg aussi Cheikh Senghor démb ñu ngi doon waxtaan ak Cheikh Bamba Ndaw mhm. ci wax am na solo. keneen koo xamante ni créateur de contenu la en fait dañ leen wan ñi nga xamante ni ay créateur de contenu la ñu ñoom tamit ñu def seen euh, def différence bi entre lan mooy influenceur ak ñan ñooy influenceur. ñu dégg ci leneen élément bi. il y a une façon d'influencer une communauté il y a une façon d'influencer euh, à travers un contenu donc euh, nekkul da ngay tëb rek ne influenceur la parce que yaa ngi def ay video parce que yaa ngi def ay publicité wala wala wala wala dara li ngay wone ci lii la nit yi topp dafa war a nekk loo xam ne lu baax la da nga war a crédible nga am benn image bu rafet ci loo xam ne boo influencé nit yi ci loolu noonu ñoom dinañ la déglu wala ñu topp la ci. donc euh, daf lañu tellu benn àdduna boo xam ne on est dans le monde digital donc tey jii nii lépp mu ngi xewee ci réseaux sociaux yi lépp foofu lay xewee kenn amatul jot toog seetaan télé kenn amatul jot def dara ñëpp ñu ngi toog seen téléphone yi la ñuy nekk H24 di xool ci di xew ci àdduna bi donc li gën a yomb mooy nit yi ñu conscientiser leen ci li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux. bon Sénégal moom léegi dafa nekk dëkk boo xam ne. ku jug rek. Cheikh ci moom créateur de contenu la en fait suñu objectif mooy gën a wane ñi nga xamante créateur de contenu ils gagnent bien leur vie grâce à internet c'est important mais duñu woowee seen bopp influenceur moo influenceur dafa xew ci jamono. et may wax. Mm-hmm. mairie mi may ñaan lii. waaw te ñu bokk ko man ak moom. nu ma koy ñaan à force. magat selfie bi buy jili jili CSB pour internet. non pour beneen bi. mais pour internet di nga bëgg. non du bii beneen man dafa am ñu may ñaan nii moo tax léegi ma dama lay ñaan dem jox leen ko <laughs> depuis sànq ñu ngi may bind. ça c'est pour les internautes. mais wax leen ne leen pour internautes yi la. mais ñii itam ay internautes lañu. ñu ngi ko ñaan directement dafa ngi nii di ma bind. nee na indil ma ko bu bu mu delluwaat si Ndiaye. dégg nga <laughs> mais pour revenir bu ko revenir si influenceurs yi. Mhm. c'est très important de faire la distinction ak différence bi comme ni nga ko waxee entre créateur de contenu nga xamante ne day def ay vidéo wala day def ay leneen ak leneen pour jox ko nit ñi mën a liker ni ñi mën a forer. ak influenceur dinaa la mën a may. <laughs> rapporté tafa bi yaa ko boobu influenceur euh, li ñuy bëgg a xamal nekk influenceur en général en moyen d'âge vingt neuf ans lay am mm. c'est pas tout le temps nag mais dañu ne moyenne d'âge bi e trente six pour cent euh, yi nga xamante ne ay influenceur lañ ci benn plateforme la ñuy daal di actif maanaam moo xam Instagram la mm-hmm. wala Facebook wala Twitter te ci kaw loolu nee nañu vingt cinq pour cent sont des hommes mm. soixante quinze pour cent sont des femmes Mm. donc ñu jàpp ne influenceurs yi jigéen ñoo ci ëpp. ba pare nekk xale. ma kontaan teg ci. mais xale waa xale. avec neuf ans du xale la. am na solo mais li nga wax wanaat leen image cachée bi commentaire yi bari na internet yi gis nga ne ñoom ñëpp ngi ci live bi di suivre émission bi jaajëfal nañ leen ñu ci bari ñu ngi encouragé commentaire yi aussi en temps réel. Mm-hmm. Euh, dañ koy jot di leen jaajëfal wax leen ñu image euh, cachée bi kan la hashtag sunu net TFM Facebook live. YouTube live Instagram live équipe digitale baa ngi ci ginnaaw ñuy segg ñenn ñi wala choisir yenn ci internet yi may leen ci cadeau yi ak jëli CSB muy sponsor officiel émission li xew ci biir internet bi ñu dem ak Youssou Ndour ñu koy waajal Bercy avant Bercy am na li de médias euh, américains yi sax gis naa ñu def ko à la une en tout cas euh, def na ba surtout Twitter xam nga léegi nag information yi temps réel moom Ah, Elon Musk li mu jënd nii. si musicien africain intercontinental international. Sénégal la ngay dégg Sénégal c'est le Madison Square Garden. ba pare ñu naan la Sénégal. c'est pas c'est pas c'est pas n'importe quoi il faut être fier de ça. mais nag ñuy waaj Bercy ñun. <laughs> le 18 juin ñëpp a ngi koy waajal am na nag avant Bercy le 17 juin euh, il faut ñu créer benn hashtag ci Bercy 2022 bi déjà loolu Bercy 2022. waaw Bercy 2022 hashtag Bercy am na avant. pardon. mais dafay gudd avant Bercy 2022 day gudd. wala avant Bercy préparatif bi. waaw avant dafay gudd hashtag bi laa wax. ah waaw hashtag ah, avant Bercy 2022 day gudd nañu def Bercy 2022 rek. oui que ça soit nekk Dakar. waaw Paris. Paris ok. Bercy 2022 mën ngeen proposer c'est interactif Bercy 2022. ñu koy waajal bii grand euh, grand théâtre mm le. le 10 juin. le 10 juin le 18 fële ca. Euh, ca Bercy ca Bercy ca Paris. Paris loolu moom nañ ci ñëw gën ko yaatal. Euh, Pape Samb balaa ñoo jeexal wanaat leen euh, terre bi câble terre bi moom la internet yi di débandé ba tey. ak waa gendarmerie nationale liggéey bu am solo bi ñu ci def. Mhm. Euh, daal di retrouver câble terre yi fële ca cité imbécile fii ci ndakaaru la. moo nekk nii ñoom ñoo fa doon def seen liggéey ba mujj daal di gis. Euh, câble terre ba ñu daggoon démb. Mhm. fële ca euh, zone bu mbaaw bi euh, forêt classée bu mbaaw bi nga xamante ni ñëpp ko ñaawlu ci réseaux sociaux yi Facebook foo ubbi ñëpp a ngi ñaawlu lu ni mel ñëpp naan sénégalais naka la mën a defee lu ni mel waaye ñu fi bàyyiwul rigole yeeg yu ni mel. ah waaw ak yi tëj kii <laughs> ñoom ñoom ñu ko fi bàyyiwul du ñu fi bàyyi table câble terre mais bii moom defe naa. Mhm. fi bi di. di téene incha allah dinañ jàpp xam naa ñu ku def ñaawteef bu ni mel wala ñu def ñaawteef bu ni mel dinañ ci ñëwaat ak ay yeneen xibaar jaajëfal soxna naata mi ñu doon jàllale xibaar bi partagé ñu ko kon jamonoy partage la jaajëfal euh, équipe bi Pape Samb réalisateur connecté ak Youssou mi doon euh, monté éléments yi jaajëfal euh, internautes yi cadeau yeeg yëpp a ngi fi image cachée bi joxe leen seen réponse Euh, mairie ñu may ko affaire bi wala ñu bàyyi. dañ koy may ay ah, yow internet yi samay xarit lañu. jaajëfal ji li CSB euh, gis naa benn vidéo yaa ngi wax ko jigéen. Mhm. bu am solo bu faa ay dara. bu ñu amee temps ñu teg ko ou bien suba ñu ñëw nga gën ci mën a développer xam na non bàyyil ba suba hmm. su ko defee xam nga man yooyu damay yoo damay kontaan di ci wax eh. en attendant rek ma euh, tàggoog euh, ñi nga xamante ne mooy suñu euh, internautes yi ak mhm. téléspectateurs yi mhm. di leen wax à demain incha allah ci beneen numéro li xew ci biir internet ñu ñëwaat indi leen lépp li nga xamante ne mooy yëngal internet